ñi fi teew ñëpp mbégte lañu ñu àndal ku gis dekoor bi xam ne fii nawet lañu ñu fiy feetee tout tànk yi yàkkamte lool gis Père Noël bi mu yegsee ci la indaale mbégte wante itam ay kado ngir xale yi ci bi la jotaay directeur général bu administration pénitentiaire dikkaat na ci lu waral bi leen dajee ngir bëggal seeni doom. ñun ñëpp fajar lañuy jóge suñu kër yi bala ñu fay dellu mu guddi duñu am jot bu ñuy saafoonteeg suñu njaboot donc euh, bu amee feet bu mel nii muy feet Noël ñu jàpp ni feetu ndaw ñi la dafay jaadu ci ñun ñu bëggal leen wan leen nii euh, ñu sori ci ñun lañu ñu ñu am cofeel la ci ñoom. Euh, que le fait que ñu bañ ñuy gis très souvent tekkiwul ni euh, ñun amuñu sentiment ci ñoom daf fekk ni rek liggéey bi moo ñu tënk. ci ay kàddu yu neex la daal di profité ngir jébbal tànk yi bi le bataaxal la. kàddu yu ma leen jëmalee ñoom xale yi man leen ñoom ñooy ëllëgu réew mi te réew mi ñoom ñoo koy tabax donc li ñuy xaar ci ñoom mooy ñu nangoo jàng am jom am yar ak teggin mbooleem lu askan wi moom. ñu bàyyi ko xel xam ni lii dañ ko war a ñoŋal dañ ko war a sàmm bu ko defee ëllëg dinañ am yaakaar ni suñu réew dina jëm kanam ndax ñun ñi ñëpp dañuy poser rek ay acte waaye ci ñoom lañu ñu yaakaar ëllëg. ndaje bi yamul foofu ay artist yu ràññeeku lool ñuy reetaan loo waate ba ci ay woykat teew nañu ci bile ndaje seen performance tax na ba tout tànk yëpp kontaan ñoom ñëpp reetaan nañu wante itam fecc nañu.